Ngabou Média bu leen fàtte abonné wu bés cloche de notification bi ngir dara bañ leen raw ci suñuy xibaar internet yooyu Ngabou Média dal leen ak jàmm ginnaaw bu ñu leen nuyoo nuyoowaatee ziar leen ñu wutali nag fa nga xam ne euh, moom mooy euh, ca Thiaroye sur Mer foofee nag euh, ñu wax ci musiba bi nga xam ne moom moo fa am ñettitu tànk yoo xam ne daal moom la ñu fekk ñu faatu ci ab woto ñoom ñi nag ah, gannaaw ñaari fan yoo xam ne sax ñu ngi leen di wër te gisuñu leen nag ñoom xale yooyee nag niki tey jii la leen a fekk rek ci benn. woto eh, ci koñ gaño nekk eh, koñ ga nga xam ne nag foofee lañu dëkk foofu lañ leen a fekk nag ñu daal di eh, faatu bu mel ni nag ñi nga xam ne ay mbokk lañ nag kii dey di maamam kenn ki nag di nijaayam daal nañ ci indi ay leeral ci wàll wi nu mel la. waaw xale de li ci ñëpp am daal laa am c'est juste samay jarbaat la ñu mais parce que maa seen nijaay ñooy ànd kenn ki doom la ci moom. waaw mais daal information yi daf ma xaw a raw trop waaw démb daal bi leen wër maag seen ay way jug ñoo nekkandoo woon fii ci bopp angle bi si taatu seen bi noonu ñu leen def recherche mais boobu bon amagun woon information que ni dañ leen lor waaw ndax boobu daal liñ ci xam daal ñooy seen kër bàjjan dem ñu leen di seet ba ngoon gi gisuma leen seen parent gisuñu leen bon ñu ñëw wax ma ko fekk ma nekkoon ci yoon ma bon léegi naa informé wu daal ba pare soog si am benn sañ renseignement may joxe. mais xale yi biñ leen ñaar kañ lañu réeroon. démb lañ réer démb ci ay vers 17 heures laa yëg ni daal seeni parents ñu ngi leen wër mais nee na réer nañ laata 17 heures ki ci mag 4 ans la am. ci mag 4 ans la waaw kon ñenn ci des ay trois ans. tout tuuti waaw tuut tànk yu ndaw lan ñaata yu góor. ñaar góor benn jigéen. anam biñ leen leen biñ leen faatee nag moom buñ si amoon nu leer moom am information ci ki ko def mais daal du rendi c'est sûr et certain. waaw du rendi moom. Ah. ñii maa jur seen yaay ñii maa jur seen pap ñaari góor la benn bu jigéen. xale daal ay sóor fekk seen ah, seen mag seen yaay seen mag dafa dëkk fa si boru dispensaire taa bu ñu xëyee foofu la ñuy dem dañuy jël si seen ndékki sax. dem seen tante naka ndékkiwuñu koo xel leen ndékki ñu ndékkiwaat après dañuy ñëwaat si kër gi bu waxtu añ jotee ñu dellu boole leen waaye lu ñu uti kër aw ñu ne awa ginaar lay toog kon aw a bari na ginaar ba démb nag bool bi kii di andi fii ñu raxas ko ñoo dañ koy yóbbu ki si gën a tuuti ba muy dem ma naka bul dem bàyyi xale yóbbu bool ku nekk yor bool dem ba ñu demee teg bool yi awa ne leen du ngeen toog ñu ne ko tooguñu dañuy dem ñu génn ñibbise te toujours dañuy dem dinañ fa def lumat mat ñaari yoon wala ñetti yoon si benn suur bi waaye démb ba ñuy demee ñu teg booy ne dinañu ñibbi awa na leen du ngeen toog yendu mën a yendu ñu dañuy ñibbi ñuy ñibbisi xam nga xam nañ yoon wi dañuy ñëw ñëw ba si borom pour bi na borom pour bi may ñu mburu kooku na leen pour mbuur mi euh, génnagul fekk borom mburu dama libéré fii toujours mburu buru ñu yàpp ka nag ma euh, yónni seen mag ma dama xool ma xale ndax ñu ngi kër awa mu ñëw noonu awa nee na xale yi newuñu fi noonu fekk maa ngi solo pour dem dëj ma ne sama goro bi awa nee na xale yi nekku léegi wàcc nga seeti xale yi ah ma continuer dem ba ma demee dëj bi tamit man tamit tooguma fa ñekk añ mu mel ni daal mënumaa lekk sama yaram bi diis ma jog ñëw ma ñëwee si kër ma yow da xale bi ñu fi jógee ba tey ñëwuñu ma dal di solaat samay dàll dem kër awa fekk awa juyoo naa moom newu fa dem na dëj ba ma ne xale yi yeggul fa la am sànce ñu ne ma fële si booru ma dem seet leen fa newuñu fa ñu ne ma xale yi newuñu fii te foofu tamit jotuñu fa noonu laa wàccee su côté yooyu wër a wëru ba sonn ba ma ñëwee ma wax len seen yaay xalé de gisuma len seen yaay su lañu joggé dugg ci biir dëkk bi di wër ba iné di maté fuñu dem ñu na xalé yaan ci lox fuñu dem ñu na xalé yaan ci lox non lañ ko japp ba iné di maté tëdduñu nelawuñu ta xalé yi mësu ñu genn la may dem kër awa ñibis la xam bu ñu jégué kër awa sa dañuy dem sangu ju geej bu ñu paré fi lañ fii lañ fekk sama lal bi tedd ak man ba guddi ku nekk jël sa doom ñibbi xale yi ñooy sama wéetuwaay ñoom laa xam ñoom ñoom tamit man la jox xam ndaxte daal dañ ma daal wéttal daal toog si kaw lal bi wax ak man di foofu ak ree xam nga sët ak maamam lu lañ may lu leen lañ may yàq bu ñëwaa xam sam néeg bu fora boo maa lee waaw góor seen néeg yaa dee dàqu xale yoo xam ne daal daal damaa waaru daal waaye nag xale yi nag xama ku leen fekk si oto bi dama dama xëy di julli fii sama doom bi góor bi ñëw bi mu ñëwee na ma ndax awa woote na fi ma ne awa woote fa da lu xew mun a xaaral ma ñëw noonu fi ma toogee di julli ma dégg mbedd mi ku nekk di jooy xalam ma ne waa lu xew ñu ne woy xale ya dañoo dee ma ne dee feeñ nañ dañoo dee ma ne leen xale yi deewuñu de ndaxte foofu ñu ne fa lañ leen fekk déeba man mii dem naar foofu dafa am ambiance guney góor yaa ngi football fii ñii jaay ngi toog noonu bu fekkoon dañoo dugg sa biir oto mënatuñoo génn dañuy yuuxu nii dañuy yuuxu nit ñu dégg te boobu xale yu góor yaa foofu di football ñii ngi jaay ñu ngi jaay foofu foofu mbedd moom du wéet taa boo fa jaayaat boo moytuwul sax dañ lay dóor bal dangay ngay moytu nga xam ne xale yi newuñu foofu foo ba dem ñu ne la xale yaa ngi lox dañoo wër a wër a wër